salaamaaleykum sama mbokku téléspectateur yi sama mbokku téléspectatrice yi ak yéen samay mbokku internet tey nag yéen a ngi seen biir émission téere yi sey di seen chaîne mi TV ngeen di wax ngeen ndaw abonné ji léegi nag téere yi dafa indi woon li nga xam ni moo nekk ñi nga xam ni dañoo yor seen femme de ménage ci biir kër gi maanaam ñi nga xam ne dañoo yor seen jànq ci biir kër gi ndax kat sa borom kër bëggul noflaay sa noflaay la la bëggal moo tax mu indi la ki nga xam ni. daf lay dimbali ci liggéeyu kër gi daf lay dimbali ci liggéeyu kër googu noonu tax na yow nga jël liggéeyu kër gi yépp jox ko ko ci kaw nan moom mooy rax moom mooy togg moom mooy taaj moom mooy teggi moom mooy bale moom mooy fomp say daal am na ci ñoo xam ne lal bi nga xam ne yow yaa ca borom kër boobu noonu kat mooy ki koy lal douche ba nga xam ne yéen ñaar koy bokk di sangu douche boobu kat moom moo koy defar ngeen teg ko fan te est-ce xam ngeen ni yéen a ngi poussé seen borom kër yi ci li nga xam ne bëgguñu ko def est-ce que xam ngeen yéen a seen borom kër yi ñu digle loo xam ne bugguñu ko woon def ndax la sa borom kër kat bu wàccee nga war a ñëw sukk ci ay tànkam jox ko ndox mu naan. jël saagam yóbbu yaa ngi rootal ko ndox dugal ci douche bi mu war dem sangu bu sangoo ba pare balaa moo ñëw fekk yow tàj nga fu mu fi nga xam ni fara war toog di añ fa nga war a xam ni fara war a toog di reer waaye kat léegi dañoo gis ne kat yi enu tey defatuñ ko ndax na sa borom kër day wàcc diw andi andi andi ko ndox mu naan diw taaj nga fi lan nga fi mu doon lan nga fi fi añee taaj nga teg nga bagage yi mu pare borom kër ñëw xewlu ba pare su paree jug diw kaay teggi fii diw kaay ranger fii nii ngeen ko fan ndax kat yéen a ngi defloo seen borom kër yi loo xam ne bëgguñu ko woon ndax nee nit kat ka nga xam ni mooy sonn ci yow ka nga xam ni moo mooy def lépp ci yow bis foo amee gestu ko ndax kat jànq bi nga xam ne moo nekk ci kër gi moo lay taajal nga añ moo lay rootal nga sangu mooy fomp say daal néeg bi ngay tëdd yaag sa borom kër moo koy defar douche ba nga xam ne yenn naa moom jëfandikoo yi moom moo koy defar ndax est xam nga bis dina ñëw sa borom kër bu amul lu muy xool dëgg dana jël kooku nga xam ne moo nekk ci biir kër gi di ko defaral ndax est-ce xam ngeen conséquences yi nga xam ne yow miy nekk ci biir néegu sëy yaa ngi ca mën a jëlee sa sëy mën na cee tas sa jëkkër mën na laa abandonné dem nekk ka nga xam ni moom lañ la indiloon ci kër gi pour mu dimbali la boobaa di nga wéet jooy te naan su ma yëgoon fekk na su fa ma yëgoon romb na dem na bu yàgg ma yëgoon romb na dem bu yàgg yàgg yàgg. tey jànq jànq boobu nga xam ni moo nekk ci kër gi yéen ñaar ngeen bokkoon kër gi mu doon la dimbali dem ba nekk sa wujj la ngay dem def mu di ko def la ngay sol mu di ko sol fa ngay toog mu di fa toog te moo ne ama amaa na noo xam ni boo defoon ci biir kër gi sa jëkkër du ko xool sax ba xelam di dem ci moom ndax bu la nee ana nekk mu ngi néegam ana diw wàcc na waaye ana diw diw kaa taajal ko añ indil ko ndox rootal ko siwo bi mu sangu defar nga néeg bi am fompal ko dàll yi saag bi ñëw am yóbbul saag bi ci néeg bi ndax xam nga xale bu jigéen boobu noonu am na ci ñoo xam ne yow la lay da da koy leen yow li nga bëgg sa biir néegu sëy moom moom la bëgg de li bëgg yow sa biir néegu sëy moom la bëgg da koy jaral mu def loo mu dem def loo xam ne après moom mooy des sa sa borom kër yow nga naan laa ko def pourtant defuma ko dara de pourtant waxuma ko dara de fekk na lan ka def mu koy jóge ca na nga da daan def na nga daan def ci biir kër gi ndax kat yow la nga waroon def moom bu dégg moom bu wëlbatikoo di ko def te yow nga xam ne yow loolu moo loolu moo tax ñu indi la ci biir kër gi loolu moo tax yow ñu ci biir kër gi nga war a toppatoo sa borom kër waaye toppatoo woo ko ba keneen di ko toppatoo kenn kooku di ko toppatoo di ko toppatoo di ko toppatoo ba am bunt bu jàllee sarax toog te dara gisuma lu ko fay génnee kon yéen samay mbokk yéen samay mbokk jigéen yéen ñi nga xam ne dangeen nekk ci buumu sëy ñu indi ki nga xam ne kat daf leen naa daf leen ñëw pour dimbali leen leen seen seeni borom kër di leen moytulee coono ndax ndax am na ci ñoo xam ne kat dañuy nekk ci kër ga di dang dang dang dang dang suba ba sa borom kër day waaj sax doo ko tal sa borom kër day waaj sax pour mu pour mu mun a jug ci lal bi nga tëdd problème la ndax lan la nga nekkoon di dang dangi ci biir kër gi yaa ci togg mi yaa ci raxas mi yaa ci fóot mi yaa ci bale bi su wàccee yow coono bi nga yendoo jàpp na la ba dootoo mën dara mu indi la ki nga xam ne dalay dimbale ci kër gi nga la xamal ni yow sa borom kër kat daf la wutal ku lay dimbale waaye indi lu la koo xam ne danga ko jël jël liggéey bi yépp wéer ko ko jël lépp jox ko ko yow boo xëyee yaa ngi yor sa lim toog fee di limi say we bu togg jotee nga ne ko génnee nga bagaas yi rusil ma ñëw sama yaay de nee na jigéen ju cin moom ko ko rusi kookoo ko toog kon nag nga la def leen attention bu baax baax a baax a baax a baax xool leen ni ngeen di toogee seen biir néegu sëy xool leen ni ngeen di jëflanteeg seeni borom kër xool leen ni ngeen mën ngeen def ko ci seen borom kër ndax kat sa borom kër liggéey ba wàcc ak a neex nga sukk ci ay tànkam jël potu ndox na ko kilifa gi am naanal balaa balaa bala bu paree nga jël pot ba yóbbu balaa mu naan nii defar nga douche ba root ndox dugal ko

say bagage yóbbu neew leen it ngeen jël femme de ménage jàppee ko jaam xam leen ni yéen bi ngeen yor moom la yor xam leen li ngeen bëgg moom la bëgg dafa ñëw kat di daan doole te yàlla rek tax bëggul sàcc bëggul njaaloo bëggul def loo xam ne kat neexul suñu borom dafa ñëw kat di wut loo xam ne alal bu lew la alal bu lew la bëgg wut waaye am na ci ñoo xam ne dañuy jël jànk ba ca kër ga def ko mbaam def ko jaam am na ci ñoo xam sax pour ñu toog a bu jànk bi nga xam ne day liggéey ca biir kër ga lekk moom problème la bu ñuy lekk dañ koy ber ana lan mooy ber ana lan mooy ber ndax xam nga situation yi toll ba tax mu ñëw di daan si dooleem kooku kat ñaqam la bëgg a dundee ndax xam nga ñan ñoo wéeru ci ginnaawam ndax xam nga ñan la bëgg a dimbali kon nag jànk yi nga xam ne dañoo ñëw biir kër ga di liggéey bu leen jàppee benn yoon jàmm jàppee leen kat comme rakk nga xam ne moom nga bokkal benn ndey rakk ji nga xam ne moom nga bokkal benn baay te yéen it nga xam ne da ngeen ñëw ci biir kër gi di liggéey xam leen ni liggéey moo leen fa indi xam leen ni daan doole moo leen fa indi xam leen ni lu lew moo leen fa indi waaye kat ngeen ñëw ca biir kër ga yéen a ngi ngoro ku góor ka pour lan ku góor kooku it gàtt xel bay bëgg a dee di ngoroog jànk ba da nga takk ki nga xam ne da ko takk ci farate ak sunna yàlla mu xam ne indi ko ci biir kër nga war koo dëkkoo dëkkal ko waaye nga nekk ci biir kër ga di ngoroog jànk ba am na ci wax dañ naan quand le chat bu soxna si demee nga nekk ak jànk bi ngeen ko fan kon nag ñu ngi leen ñaan gàlla yéen ñett ñi nga xam ne dañ leen boole ci biir kër ngeen dimbalante ngeen jàppalante tey kat seen système musul lii kat la leen indi seen biir émission téere sëy seen chaîne bi nga xam ne ñu ngi ko bi nga xam ne mooy MIK TV ñu leen di wax ngeen daw abonné ci ñu ngi leen di jaajëfal bu baax.